parti Pastef ñëwaat ni ginnaaw bi ñu tasee parti bi dekkalaat ko def nañu démb ci dimanche yi seen réunion bureau politique bu njëkk fa njiital parti bi Ousmane Sonko waxee ne Pastef dafay tàmbaliwaat ay activité bokk ci activité ab congrès bu ñu war a organiser ci seen biir weer yi di ñëw mu doole ci moom Ousmane Sonko ne bu neexee yàlla li askanu Sénégal di xaar ci ñun danañ ko matal sëkk nee nañu xam ne xeex bi dëgg mi ngi soog a tàmbali journal it ci tournée bu ñu war a war a bu leen war a ganesi ci réew mi lise ko nañuy ngir wànne seenub taxawaay bu leer ci wàllu panafricanisme ak ci wàllu souverainisme tax na parti Pastef beral loxo ay partenaire am bokk ca partenaires yi Jean-Luc Mélenchon ak ñi mu àndal ci insoumis français ak soldat yi nangu pouvoir yi ci dénb Afrique bi ci réew ñu nekk ñu naan leen ay putschistes moo waral ñuy waajal ab tournée ci Guinée Conakry ca Mali ca Burkina Faso ak ca Niger di ay réew yoo xam ne soldat ñoo foqati nguur ga tëye ko yooyu yëpp bu weesoo surnaat Tribune gis na ne li ñuy xaar Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ñu indi ay saafara yu wér péng ci tawat yoow yi fi nekk ay were solution ci were problème yi fi nekk ñu fexe ba képp ku xiif ci réew mi mën a am loo lekk ndax fii ci Sénégal dem nañu fi ba léegi xëy ndékki reer soog a tëdd luxe la ci kër yu bëri ndax ñu bëri mënuñu ko yeneen i jafe-jafe yu journal bi gis nañ ñoo ngi ciy xaar ay saafara moo nit ñi am fu ñu mën a dëkk ku ci feebar mën a boole ceek ñu fexe ba ndox mu sell te doy daj ci askan wi yëpp président de la république Bassirou Diomaye Faye ak dogal bi mu jël mu di arrêté bépp travaux bu ñu def ci littoral yi libération nee nañu dégg nañu démb kii di maître Doudou Ndoye mu wax ci émission Grand Jury bu rajo Futur Média Madiambal mën nañoo yàqalaale ab jàmbur boo xam ne la may def yëpp ca yoon la ko teg ñu teg coow loolee ci suuf te wax ci coow li tàmbale jug ci waa kër Bassirou Diomaye Faye journal Source A moo ko xëyee ci xët njëkk ba diñ wax ne parti ak mouvement yi taxawaloon lakos ngir jàppale candidature bu Ousmane Sonko ci présidentielle 2024 te candidature ba muñ ko jàll ñu far wiire ci coalition président Diomaye ñooñee ñoo yëglu ndax ne nañu gisaguñu seen bopp ci cëri Diomaye Sonko di séddale ci réew mi toll nañu ci fukk ak ñett te ci ñoom ñëpp Moustapha Guirassy ak parti bi di MRDS rek sursoit ne nañu ñoo gisagum seen bopp ci yëf yi te MRDS sax dañoo zappé docteur Mohamed Sall mi jiite parti ba ab secrétaire am takkal ndombal tànk te ne nañu dara taxul ñu def ko lu dul jege gu mu jege Diomaye ak Sonko leneen li gën yokk ci xarmi karaw yoon nañu li ñu woon ci seen biir moo di bépp candidat bu ñu rakalee boo bëggee ñëw jàpp ci coalition Diomaye président da ngay ñetti millions Mary Teuw Niane moitié ba di un la joxe kii joxe lu rëy sursoit ne nañu mooy Aminata Touré moom juróom benn million la joxe te ba léegi kenn déggagul benn ndombal tànk bu ñu ko takkal ci réew mi njiital mi fi woon di Macky Sall moom la journal quotidien xëyee ba dañu wax ne moom Macky Sall na Gounass am net ab délégation bu mu yebal ca Kaffrine point actu gis ne doxalinu rafetul àndul ak li ñu naan élégance républicaine boole ca dafay firndeel ne moom Macky Sall diggam ak Amadou Ba diggante ba jeex na wane na ab état majeur moom Macky Sall état majeur ba yéenekaay bi nee nañu Abdoulaye Daouda Diallo la Amadou Mame Diop Sidiki Kaba Alioune Sow Alioune Doumboury Sow Farba Ngom ak Mansour Faye Karim Wade ci xët mu njëkk ñooñam yi di ñu fi gis fan yi ci réseaux sociaux yi mu di ab apprenti bu taxaw ci marchepied otom oto bu ko romb mu lay wéq ak di la kengetloo l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne chauffeur bi doon dawal njaganjaay boobu ak apprenti bi doon def lu ni mel jàpp nañu leen section des accidents et des préventions routières bu Ndakaaru moo leen jàpp seen vidéo bee wër réew mi l'observateur nee nañu dañ ciy a jot rek waaye ci weeru janvier la woon la woon wanniwul ñu des ba léegi ne bu ñu amee jëkkër a sayaat ñu gis bi benn jëkkëram gaañoo mu dem sëy ak keneen ci la ko taawum bu jigéen abandonné beneen femme bu ne ci l'observateur samay doom bi seen baay faatoo ma dem sëy ak keneen sama doom ju góor jaasi la génnil waaj direction de la santé mère enfant